ñun sax bala ñu ñëw Touba déggoon nañu xam nañ bu baax Safinatul Aman liggéey bu baax bi mu def Touba kon bokk sawar nañu ñun administration ànd ak ku mel noonu saytu dogal yu mel nii kon bokk suñu xel gën na daal ndax ki ñu àndal ku xam li muy def la ndax yàgg koo def te juru njëriñ moo tax ñu dénkaat ko ko tey nii ñun loolu suñu chance la parce que xëj na bu doon keneen dina am yéene ji dina am bëgg-bëgg bi waaye xam gi mën naa des te dogal yi jëm ci ay nit te looy teg nit rek ah lu war a xoolaat la bu baax waaye day ñun ñi nga xam ne ñoo yore administration taxaw nañu pare pour comité boobu ñu liggéey yom ci ponk yépp ñu fi wax ñu nag gouvernement Sénégal bu ñu amee dëkk bu mel ni Touba am maam mel ni sëñ Touba liggéey fi liggéey bu mel nii àddina yëpp di ko dañ ko war a ñàkk dañ ko war a aar gouvernement bi day parce que nee na ànd ak yéen man mi ko fi teewal ak ñii ma àndal parce que nañ leen soob suñu loxo ci liggéey boobu te fii ngeen ko bëgg a jaare day fu dëgg yàlla dal na xel lool parce que dem wàcc ci quartier yi wax ak délégué de yi dem ci village yi wax ak chef de village yi ku ci nekk wëlbati ko wax ak sa njaboot sëriñ bi ne njàngam njàngale mi sax nañ ko gën a farataal pour nit ñi gën a xam pour wàññi réer bi loolu day ba leen ko waxee ci ndawal buur xelam mën naa dal ndax lay fa dëgg yàlla bu sañoon Sénégal gépp ñu am lii kon boog dama leen di ndokkeel di ndokkeel sëriñ ci taxaw bi mu bëgg taxaw pour gën a ñàkk Touba gën a aar Touba ndax ñàkk Touba mooy ñàkk Sénégal rek ndax jikkoo su yàqoo lépp yàqu alal li muy baax baax jikkoo ko gën diine li muy jëkk li muy mujj ci nit lépp ku la diine jikkoom doyul bu la diineem doy ku la jikkoom doyul bu la diineem doy ndax jikko diine jikkoo ko tax jox moom lañu visé ndax suñu boroom nekk na yàlla ba pare mooy buur di borom waaye ñun jikko ju baax lañu yàlla bëggal te yonante bi sallallahu alayhi ah suñu borom day ne nañ tàgguñu ko si day tàgg ko si bàyyi si jikko la ko tag kon boobu sëriñ bi day xëy na dañoo yërëm rek euh, yërëm njabootam rek moo tax mu bëgg ñoo jaaj bëgg ñoo xiir ci suñu boroom ba ñu moytu ay tereem di digle ay santaaneem nguur gi nag loolu ci lay taxaw ci loolu la nekk rawatina réew mu nga xam ne réew mu dafa nekk réewum ndaw ndaw yi ñu ëpp ci réew mi tey kon boog duñu jàmbat rek li fi xew lu mën a am te ñu ne xëj na ndaw yi waruñu woon a mel nii jàmbat bi dadul doy rek dañuy def li sëñ bi def da ngay taxaw na parce que taxaw jox jéem dara mooy tax nga am dara waa bu ñuy jàmbat ne suñu njaboot day nii lañu mel naa nañu mel di leen sikk am na beneen taxawaay bu ñu war a taxaw pour loolu ñu leen di sikkee mu mën a dañ pour xa nga xam ne taab bi ñu ci yàlla musal leen ci te yaakaar naa ne Touba solo nga ne jàngal xale yi diine diine jiitu seen dënn yi alxuraan jiitu seen ruub ba nga xam ne seytaane dafa mën a am place leen di jëkkanteeg seytaane ba seytaane dafa am place te lii bu lawee daara gën a am doole yaakaar naa ne réer dina deñ te ku yee fu yeewoo itam di nga am yaakaar ku fi am njaboot dina am yaakaar parce que sa njaboot ña mooy àndal ñu baax la ñuy doon koñ ba nga dëkk say dëkkandoo ñu baax la ñuy doon béréb yu mbedd ngay jaar doo fa dégg loo fa warul dégg wala gis fa loo fa warul gis kon boog sëñ bii société bi lay defar ñu nag nguur ci loolu lañuy liggéey kon ba man ak ñi ma àndal ñu ngi leen di faskee ni jàppale ci liggéey boobu di wax ne ginnaaw liggéey bi dafa am ci ay loxo luñ ko teg ni ñëpp tënku ci ginnaaw ñañu teg jox liggéey bi ñooñu ànd ak administration